الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله kon ñu ngi ñëw ci seen tafsir si suratul lixlaas lixlaas moom mooy sellal mooy wéetal moo tax ngay déggañ borom xam-xam yi de bu doon na yàlla carte d'identité am lañ la laaj mooy suratul lixlaas ndax jële nañ ci ubay ibnu kaab mu ne yéefar yi dañu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wax ñu kan mooy sa borom nu mu mel mooy kan kan moo ko jur ndax jur na kenn wala déet moom lan la nan la mel si la yàlla tontoo ne ko waxal xul gis nga ñaar yële xul la ko wax waaw xul ci tàmbalee alquran si ay saar moom bokk na ci muy ñetteel bi beneen bi xul yaa ayuha alkaafiruun بنين بخل أخي إلي أنه استماع مي جروم يو ينغا خمانتاني خل لا تنبالي وحلين يو سيدنا محمد يالا جنوي لاج هو الله موي كان موي اسم الزات موي تروم دق دق هو الله الله واو الله أحد كان لا وهو الواحد واي أحد كان لا فلا تنبالي فلا جيه أحد waaw amul deuxième amul troisième ahad waaye bu ñu wan ne waaxid ñu ne isnaani salaasa arba waaw déedéet mais yàlla kenn la amul ñaar amul ñett huwa allahu ahad kon du yàlla yu bari comme ni ngeen tege ci xërëm yu baree bari yaakaar na yii mën nañ leen dimbali déedéet benn bi rek moom moo fi ne moom ahadun kenn la moom borom bi subhanahu wa taala du ñaar du ñett kon soxla yépp benn yàlla bi rek moom doy nañu ci kooku mooy borom bi subhanahu wa taala ahadun allahu moom yàlla moomu assamadu assamad mooy borom bi nga xamante ne du lekk du naan te ñépp moom lañ soxla assamad du lekk du naan soxlawul xërëm yi ngeen di jël di fa teg dara pour déedéet moom assamad la lekkul naanul te it ñépp moom lañ soxla moom borom bi subhanahu wa taala koku moy borom bi subhanahu wa taala as-samad moy ki nga xamantene mo fi fiy des tamit lolu la xataada wax waw moy bu lépp jexé mom rek moom moo fiy des as-samad waw as-samad dara féetewu ko kaw mom mo fi des dara féetewu ko kaw du lek du nan ñépp mom lañ soxla tayit as-samad moy ki nga xamantene ben ayib newul ci mom as-samad jox la si ne la léeg-léeg baax na sa njaboot yàlla sàmm leen aar leen barkeel leen boo bindee as-samad baat boobu as-samad saat boobu nga yaatal ko sa njaboot nga bind seen tur ci biir nga defal leen lixlaas bi téere ñu takk ko insha allahu rabbi yàlla dana la ci defal barke si ñoom si seen njaboot boobule moom yàlla moomu ne lam yalid ولم يولد جل kenn kenn جروكو le père le fils le saint esprit dedet mom amul du ñaar du ñett amul lata uzza dedet mom ben benn rek la mom borom bi subhanahu wa taala lam yalid jurul ken isa du doomu yàlla dedet uzair du doomu yàlla dedet walam yulat te kenn juru ko borom bi subhanahu wa taala jurul ken ken juruko nan la fi ñewé mom rek mom moko xam waaw moom rek moom moo ko xam kon yàlla kenn juru ko kooku mooy al ixlaas walam yakun lahu kufuwan ahad amul it ku mel ni moom amul ku tol ni moom amul ku koy diir mbagg amul ku man li mu man walam yakun lahu kufuwan ahad nag ci dara waaw yàlla cappacoli la bëggul kenn ku ko bokkaale kon kooku mooy yàlla subhanahu wa taala kon ki ñu lay laaj noonu la mel ki ñu lay laaj mooy kooku saar la woo xam ne bari na ay ngëneel mbokk yi yonente bi am na ñu mu daan yebal na leen dem leen gox sàngam yéen a fay imaam yi yéenay jàngale alquran yéenay jàngale diine saxaaba boobu le moom julleem yépp tisbaar fatiha li xalaas tàkkusaan fatiha li xalaas timis gewe julleem yépp fatiha li xalaas ñooña dem wax ko yonente bi ne ko sa waa ji daal xëj bi dafa sorayul yonente bi oolu ko ne ko waaw liñ may wax ndax noonu la mu ne waaw loolu de dëgg la loolu de lay taari si julli yëpp mu ne ko manoo yeneen ni des mu ne ko aha kay mu ne ko bon lu tax nga yem ci foofu rek mu ne ko bi ñu firilee suratul ixlaas bi ñu xamee njariñ yi ci ne bi ñu waxee yàlla mooy kan ci saar wi ba tey dama soppa saar ngir jëmm yàlla loolu moo tax fu may jànge rek lixlaas lay jàng yonente bi tàpp ko raay ko ne ko yàlla moom day mu ngi lay xamal ne yàlla bëgg na la yàlla sopp na la yàlla bëgg na la yàlla sopp na la kon loolu mooy li nga xamante ne ay ngëneel la su ko defee doomu aadama bi war ci bàyyi xel bu baax kon mu ne ko yàlla mi nga xamante ne moom tax nga sopp saari ba di ko jàng yàlla sopp na la kon te ku koy faral di jàng yàlla dina la dimbali ci ak naafeq yàlla dina la dimbali ci lixlaas yàlla dina la gunge fépp léeg-léeg dañu koy faral di barayal lu ñuy jàngal ñiy jiitu barzax ah kay baax na waaye bu ñu fàtte suñu bopp nañuy jàngal lixlaas suñu bopp ndax ñu nit dañ ko soxla lixlaas du pour ñoom rek lixlaas pour lépp la dafa matale lixlaas wallaay benn bi rek maara day taali ma taxoon yonent bi ne benn lixlaas mooy ceeru alquran baneen ceer ñëw baneen ceer ñëw kon boo jànge ñetti lixlaas mu ne dafa mel ni jàng nga alquranul karim loolu yëpp daf la koy wax pour wàll doole ji suratul ixlaas am suratul ixlaas boo koy faral di jàng jamono bu ne foo nekk rek yàlla dina la fa fekk ax ay wërsëg yàlla dina la fa fekk ax ay teraanga lim yi nag comme liñ leen waxoon lim boo ci man rek nang ci sax léeg-léeg nga joxe lim bu bari mu bari ci ñenn ñi léeg-léeg mu daal loo si mën jël rek na sax yonent bi naa daal la gën ci la ngeen di def azkar mooy lu sax rek donte le néew na kon nak lolu nañu koy jël bu baax yal nañu yàlla defal tawfiq suratul ikhlas sop nañ ko lol ngir yàlla yal nañu yàlla defal tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh